recommandation yi dal ci jafé jafé yi xamna né ñi nga xamné nga ñi dañuy liggéey pour sen bop nek dans la production agricole ils ont besoin d'infrastructures ils ont besoin waaw soxla nañu dal ñu tàggat leen ci xéetu métier yi nga xamné ci yi yëngatu soxla nañu aussi am ay jumtukaay yo xamné yi dal dina am solo pour ñu mëna denc manam sen production du jëm ci walu mbay lu melni entrepôt euh, nous avons aussi une collaboration avec le marché d'intérêt national euh, représenté par son directeur ici présent Nous avons accès à un partenariat à xam ne à lëkkaloo boo le mine Nous marché bon objectif de rencontre bi le euh, conseil départemental de Il faut organiser forum multi-acteurs parce que depuis 2016 le conseil départemental a un partenaires GRDR,

et qu'on veut faire de l'alimentation, la consommation locale, comme un levier de développement économique. Nous savons que si a une facilité, pour euh, accès à une alimentation saine la ku wax bu baax développement et depuis nous avons ay liggéey tous les acteurs de la de l'alimentation de l'amont à l'aval avec les producteurs nous avec les femmes transformatrices avec les consommateurs et avec les élèves pourquoi les élèves Parce que nous, notre premier point, c'était que nos cibles, les enfants, nous avons commencé la consommation locale, nous avons commencé l'école. Depuis, on a des cantines scolaires, on a deux cuisines centrales dans le département qui nous permet de distribuer chaque jour, chaque jour nous distribuons 2500 repas. Nous ciblons à écoles, plusieurs écoles. Nous avons chaque jour nous avons minimum ñaari par école pour les donc 2500 à 3500 repas ñu ngi dem Diamniadio Bargny rien que pour participer à l'éducation des enfants mais rien que aussi pour sensibiliser les gens à consommer local parce que tout ce qui se passe là-bas c'est des produits locaux amul benn produit importé léegi itam boo gisee tey jii ñu sawar trop ci ndaje bi mooy que ne directeur du mine bi dañ sàkk woon mu ñëw tey pour waxal ñu suñu producteurs yi lan mooy seen possibilité d'intégrer le mine international parce que le mine nag dafa nekk ci suñu gox ñun le département te ñun bëgguñu des ginnaaw kon nous mu ne nii agriculteurs yi organisé wu wa waa Lendeñ yi waa les producteurs maraîchers de de Bambilor mm. bon on est on a pas mal de producteurs tellement bien structurés tellement bien organisés Les comme depuis lors ñu ngi leen di c'est si le wàllu suuf ndax seen problème mooy suuf ak ndox yooyu léegi nag ñu comme mine bi pare na ayca dañuy dem mine ba il faut ñu am fa suñu place looloo taxoon ñu directeur bi mu wax ñu nañ la ñu mën suñu suñu producteurs yi suñu femmes transformatrices ndax itam ñun tam dañu bëgg a bokk ci mine bi